diwaanu Bambey ba léegi mun nañ ne soixante onze mille trois cent trente deux lañ toll. Mhm. Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo am trente huit mille six cent vingt cinq soit un taux de trente euh, cinquante trois virgule cinq pour cent. Idy 2019 am vingt cinq mille trois cent soixante quatre euh, euh, votants mu di taux bu toll ci trente cinq virgule un pour cent son président am quatre mille six cent soixante dix neuf. votants mu di taux bu 6 virgule 5 pour cent Madické Niang moom 1539 votants la am. Mhm. mu toll ci taux bu di 2 point 1 pour cent. Issa moom tamit am na 1125 votants muy xool di toll ci taux de 1 point 6 pour cent taux de participation bi rek ci département bu Bambey toll na ci 63 virgule 62 pour cent loolu boo xool téeméer bu nekk. juróom benn fukk ak ñett yu tegal daal ñoom ñoo voté ci diwaanu Bambey mhm. bu ñu demee ci département bu Diourbel mhm. foofu amoon nañ euh, cent six mille neuf cent seize inscrits mu toll ci ñu voté soixante onze mille huit cent soixante deux bulletin nul yi toll nañ ci neuf cent six suffrage valablement exprimé ci département bu Diourbel ba tey soixante dix mille euh, neuf cent cinquante six mhm. Macky Sall moom ak benn Bokk Yaakaar am nañ quarante mille cent trente deux mu di taux cinquante six virgule cinquante six pour cent maanaam téeméer boo jël juróom fukk yaak euh, juróom-benn yu teg euh, woteel nañ Macky Sall. Mm-hmm. Idrissa am vingt deux mille zéro vingt deux euh, votants trente et un pour cent trente et un zéro virgule quatre pour cent maanaam téeméer boo jël. juróom fanweer yaak benn ñoom ñoo woteel kii di Idrissa Seck Sonko au président moom euh, dix mille deux cent soixante dix neuf votants la am mu toll ci taux bu dool ni euh, juróom-ñett euh, téeméer boo jël juróom-ñett yaak yu teg daal ñoom ñoo votel Ousmane Sonko Madické am mille six cent cinquante votants mhm. mu toll ci téeméer boo jël ñaar ña yu ñaar yu teg daal ñoom ñoo ko votel Issa Sall nag moom 872 la am ci département bu Diourbel mu toll ci 1 point deux pour cent maanaam téeméer boo jël benn nit bu teg daal moom moo votel ki nga xamante ne moo di Issa Sall. taux bi nag ci département bu Diourbel boo koy xool toll na ci. 67 mhm. pour cent maanaam juróom-benn fukk euh, juróom-ñaar. Mhm. ci téeméer boo jël ñoom ñoo voté ci département bu Diourbel soxna. jaajëf Babacar Diouf mu ñu doon jox euh, résultat foofee ca euh, diwaanu Njaareem mu mel ni nag département bu Bambey ak bu Njaareem la ñu jox ñu dem. pikin fekki fa Salif saw saalif Salif Sow moo togal groupe Futur Média ca banlieue bu Ndakaaru pikin jàpp gi jawaay jamono ji ñaar doo euh, résultat yu Pikine la baaxee Salif saw waaw kon mu ngoog euh, ñu bàyyi la ak téléspectateur yi nga ñëw ci résultat provisoire euh, foofee ci diwaan ba muy ay résultat globaux. yoo xamante ni affiché nañ ko ci tribunal départemental bu diwaanu Pikine. Mhm. Pikine ñi nga xamante ni ñooy inscrits yi ñu ngi toll ci cinq cent soixante treize mille huit cent quarante quatre ñi nga xamante ni ñoom ñoo voté ñu ngi toll ci trois cent quatre vingt mille quatre cent quatre vingt quinze maanaam kon fukki nit yoo jël diwaanu Pikine te ñu bindu ci liste électorale yi juróom-benn yi jàpp juróom ñaari yi voté nañu. bulletin yu nul yi maanaam ñi nga xamante ni mënuñoo voté voté ba baaxut seen lim toll na. ci mhm. deux mille quatre cent quarante six. Mhm. suffrage valablement exprimé xob yi gaañu seddoo mu ngi toll ci trois cent soixante dix huit mille quarante neuf. ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall moom moo am cent quatre vingt trois mille quatre cent soixante neuf voix boo ko xoolee mu ngi nekk daanaka téeméer bu nekk moo ngi ci am euh, ñeent fukk ak juróom-ñett jàpp juróom ki nga xamante ni mooy Idrissa Seck moom moo ci topp moom mi ngi am quatre-vingt-dix mille quatre cent six maanaam téeméer boo jël moom daanaka mu ngi ci ñaar fukki ak ñeent jëm juróom-benn Ousmane Sonko moom moo ci moom mi ngi am soixante-quatorze mille quatre cent sept euh, ki nga xamante ni mooy euh, Cheikh Issa Sall moo ci topp am vingt-deux mille huit cent quarante-six voix Maître Madické moom moo ca topp moom mi ngi am six mille six cent soixante-dix-huit voix loolu daal lañ seetlu ci diwaanu Pikine. démb mhm. tamit ñu ngi koy wax ci diwaanu Guédiawaye résultat yi génn na ki nga xamante ni moom moo ko jiitu di Macky Sall. Mhm. amul ak 50 pour cent foofu waaye mu ngi fa am 48 virgule 78 pour cent. Mhm. Idrissa Seck moo ci topp ak 35 mille 646 voix. Ousmane Sonko toppoon ca ca Guédiawaye lañ nekkat 24 mille 243 voix. maître Madické Niang moom moo mujj am mi Issa Sall la ko jiitu am ci 1552 voix ci banlieue bu Ndakaaru kon. Hmm. jàppal ne résultat yi ña nga noonu. Euh, waa Benno Bokk Yaakaar boo boolee Pikine ak ñoom ñoo jiitu waaye seen euh, pourcentage c'est good 49 pour cent. jaajëf Salif Sow moo ñu doon jox euh, résultat yi foofee ca Pikine euh, jàpp Géejawaay ci juróomi mbër yooyu soobu woon euh, ci xaaj bu njëkk bi di premier tour jongante palub njiitu réew muy ay résultat provisoire bu nu jógee Ndakaaru ñu dem Fuladu fekki fa Abdoulaye Diallo Abdoulaye. allo Abdoulaye Diallo. waaw Fatou Dieng. aywa gannaaw bi ñu la ziaree ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi nga ñëw ci résultats globaux di ay résultat provisoires encore une fois euh, ca département ya nekk ca région bu Kolda. voilà ca yooyu département damay tàmbalee département bu Médina Yoro Foulah fa nga xam ne inscrit tollu woon nañu ci quarante mille trois cent soixante six ñi fa jot a voté nag ñu ngi nekk vingt huit mille cinq cent vingt cinq bulletin nul ñu enregistré huit cent valablement exprimé ca Médina Yoro Foulah mu doon vingt sept mille sept cent noonee la Benno Bokk Yaakaar am si dix neuf mille neuf cent quatre vingt douze muy un taux de soixante douze virgule douze pour cent topp ci Pastef maanaam Sonko am si quatre mille cent trente trois mu doon un taux de part un taux de quatorze virgule quatre vingt dix pour cent topp si keneen ki muy Idi Idi en troisième position ca Médina Fula mu am deux mille huit cent quatre vingt huit avec un taux de dix virgule quarante et un pour cent Madické trois cent quatre vingt virgul virgule 42 pour cent Pire 311 un virgule 12 pour cent bi ma jógee Médina Yoro Foulah ma jaar Vélingara Vélingara mm-hmm. foofu ñi fa bindu woon ñu ngi toll ci 99 787 ñi fa jot a voté ñu toll ci 69 590 bulletin nul ñu enregistré 1183 suffrage valablement exprimé ca Vélingara mu doon 68 407

Madické 1042. Mhm. ak Pur euh, très bien Abdoulaye Diallo doon àddoo ci diwaanu Kolda jox ñu euh, résultat ñetti département yi muy Médina Yoro Fula Vélingara ak euh, Kolda ñu wéyal xabaar yi di fàttaliwaat rek ne àttekat bi di Demba Ka ñu yore nag lu jëm ci kuréel googu di saytu lu jëm ci wàññi gi ci jongante palub njiitu réew joxe nab àpp nee gën ngaa gën ngaa yéex àjjuma ci kàttanu yàlla daañu am résultat provisoire yooyu euh, ñu xam fan la wànneen di mujjee ak i gëtam ñu wéyal xibaar yi des ba tey ci jongante palub njiitu réew boobee ak kuréelu tasukatu xibaar yi ñaawlu nañ nag kàddu yu tukkee ci yenn ci ay candidat ñu jëmale ko nag ci ay organe de presse bokk na ci groupe Futurs Médias ay kàddu yu xoqatal lañu ko gisee kàddu yi nappaate itam lañu ko gisee ci seen gis-gis doxalin bu ni mel kuy laajum réew waru koo amale ndax dafa war a yaa dënn leneen la ñu gis itam mooy taskatu xabaar yooyu euh, luñ leen wax leen ndax dañu ko naan taf ne fang euh, ci euh, buntu euh, fi nga xam ne mooy bureau de vote yi te seen i mandataire ñoom candidat yi ba ñu koy wàññi ña nga fa toog defuñu du dul joxe résultat yi tey itam nee ñu lépp lu dal taskatu xabaar yooyee dinañ jël seeni matukaay ba mu mat sëkk ba Kassé jiite Sampix la ñuy lu kàddu yi ki ko taataan di Cheikh Sadbou Fall ni dañuy toppatoo mbirum tas xibaar di wala daje bi mooy euh, démb da dañoo dégg ñaari candidat yoo xamante ni dañuy xëccoo réew mi euh, woote ndajum ndajeem taskatu xibaar di ci xarab taskatu xibaar yi ku loolu dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu fu ñaawlu mën a yem d'autant plus ba fii ñuy wax résultat génn benn ñooñee di wax loolu dara waxuñu ni bu sel bu ëllëgee kenn ci ñoom du doon président du Sénégal benn également d'autant plus que ba fii ñuy wax mënuñuy wax ni benn média def na loo xamante ne waruloo waru ko def média yi seen rôle ci élection bi gannaaw bu ñu couvrir campagne électorale bi ba sax ñu bëri si suñuy ñooñ naroon ci ñàkk seen bakkan bu leen fàttali xoon Tamba gannaaw bi ñu ci agressé sax ñenn ñi démb ñi euh, yëngeel li xew Tataguine ak li xew Pikine ak yu demee noonu gannaaw ak gannaaw ak gannaaw seen rôle mooy li Sénégalais yi décidé ci bureau de vote yi ba ñu taf ko mu ne fàng ne weng ñu jottali ko ba yeneen Sénégalais yi fa neewul mën ko dégg aywa ñu wéyal ba tey ci jongante palum njiitu réew bi ñu génn dibeer euh, jile ñi nag euh, di waa société civile bi ñu ne euh, dañoo jëloon ñuy saytu rek ñu wàcc ci fanwe ñeent fukk ak juróomi département yi ne ci réew mi rafetlu nañu mbir ma nañu doxee waaye itam ne ñu am nañuy xabaar yu aju ci boobile jongante jamono yi nag du waxtu joxe ko dafa jot moo tax seen daje ak taskatu xibaar yi am na ay leeral lu ñu ci indi ci teewaayu a bi paas yi soxla woon si société civile sénégalaise jot nañ amal bilan wu élection yi am démb. mission d'observation wu société civile yi euh, yi nga xam ne am nañu accréditation accréditation wu état bi dañu euh, samp euh, ci ay ñetti gox fii ci Dakar ay situation room situation room yooyu doo ñu dañ leen samp pour ñu saytu élection yi. xool ndax jaar nañ jaar nañ yoon war a jaaruñu yoon ah bu amee ay rëq-rëq euh, mission yi euh, day euh, def nañu seen kenn plan kàttan pour ñu mën a corriger rëq-rëq yooyu ah, pour def liggéey boobu lu mat 3000 lu ëpp cent 3135 observateurs déployé nañ leen ci territoire Sénégal 45 départements yëpp. amoon nañu fa ay ay observateur euh, yu fa nekkoon waaw euh, loolu nag tax na euh, fu mu nekk nii fu mu nekk nii tembe ñun yore nañu élément d'information yi yépp yuy mën a may ñu wax élection yi élection bi naka la demee. ñu ngi wax ni nag ñoom am nañ information yëpp di jóge ci vote bi mais duñ ko utiliser wala boog suñu demee bu koy utiliser nañ ciy ànd ak. commission yi nga xam ne ñoo war a joxe résultat yi. je peux vous dire que nous avons suffisamment d'éléments nous permettant de de de dire. mën naa wax ni éléments yi ñu yor mën na tax ñu wax élection yi ni mu demee mais duñ ko joxe ndaxte du ñun ñoo ko war a joxe te yoon mayuñu ko mais nag su commission bi joxe ay résultats yu wute ak yu ñu yor bu boobaa dinañ xool nan la ñuy def. s'il y a lieu de le faire nous verrons en temps opportun. ñu ngi ñaawlu nag attitude ginnaaw bu vote bi jeexee. Euh, ñu ngi euh, ñaawlu euh, taxawaayu yenn média yi yenn média yi nga xam ne dañu jalgati seen yoon jalgati seen éthique ak déontologie. ñu ngi ñaaw yi tamit yenn déclaration yi nga xam ne yenn candidat opposition bi ñoo ko def di jëmale ko ci ay médias nationaux ak internationaux. di leen euh, reprocher euh, li ñu public euh, résultats yi nga xam ne dañ ko publier mu doon ci seen gis ay résultats yu tendance yi ñu ngi ñaawlu tamit déclaration premier ministre bi premier ministre nga xam ne moom mooy jëwriñ ju jëkk yi Euh, nga xam ne ci directeur u campagne Macky Sall la bokk euh, bi nga xam ne dafa def déclaration ne euh, Macky Sall gagné na premier tour ak 57 pour cent. mission d'observation yu nekk ci réew mi wala ju jóge bitim réew participer nañ ci scrutin bi am démb fu mu toll nii nag ñu ngi def seen bilan waaye lu ñu mën jàpp mooy scrutin bi jaar na ci yoon. Tidiane Cissé ñu sant la gërëm la des ba tey ci jongante palub njiitu réew boobu ñu ne nag amal nañ ko ci jàmm akuk dal loolu nag wane rek na ni askanu Sénégal fi mu ne nii kenn mun leen a euh, dugal ci lu nu bëggut dugg lool nag moo tukkee euh, ci kàddu yu observateur yi nga xam ne dañoo bawoo biti réew euh, demu nag seen daje ak taskatu xibaar ci Ndakaaru la ñu ko doon amal di def taxaw seetlu bi ci teewaayu Tidiane Cissé la woon ak Mar Dieng médias nationaux yi ak médias internationaux yi la ñuy di observateurs internationaux yi ñëwaat jot a nemmeeku ci scrutin présidentiel bu dimanche. d'abord par rapport à l'ouverture nous avons constaté. d'abord ci wàllum bureau de vote liñ jot a gis mooy que dañoo ubbi côté huit heures huit heures dix ak huit heures et quart d'une manière générale gis nañ personnel bu xarañ bu xam li muy def. qui a qui sait ce qu'il faut faire. yooyu la observation doon na li nga xamante ne ñii di waa CEDEAO tamit jot a gis ci centre de vote yi. Ces observations portent sur 274 bureaux de vote. jot nañ observé lu toll ci 274 de vote ci Sénégal yépp li nga xamante ne moom mooy ouverture bi dañoo gis ni kat sauf seulement 14 pour cent moo ubbiwul bu heure bu normal waaye li ci des yépp dañoo respecté heure ouverture Dans seulement 14% des cas, les bureaux observés n'ont pas ouvert à l'heure. pour observateur internationaux yi scrutin présidentiel dafa jaar yoon sol quelques jafe-jafe rek lañ jot a nemmeeku ci terrain bi. dans seulement des cas des électeurs ont été refusés d'accès au vote dans les bureaux de où ils n'étaient pas inscrits. après conclusion yi li observateurs internationaux yi rafetlu nañ mobilisation population Sénégal pour vote bi pour ñoom loolu doon na li nga xamante ne dafay firndeel maturité Sénégal ci wàllum démocratie Tidiane Cissé tàggat yaram ci tënk Sénégal Madagascar Aliou Cissé nag ne ñu euh, liste gaynde ya ca nara bokk ëllëg yam ak àllarba koy fësal Aliou Cissé dina taskatu xibaar yi ngir fësal euh, boobile liste jongante bi dox diggante euh, réewum Sénégal ak waa Madagascar ñu jàpp ko ñaar fukki fan ñett ci weeru mars ca diwaanu Thiès loolu nag soxal juróom-benneelu bëccëg qualification bu CAN 2019 euh, bu nu sukkandikoo ci record mi joxe xabaar bi euh, moom mi tàggat sunu gaynde yi nag ñu ne ñaar fukki gaynde ak juróom daal euh, bàyyi na leen xel ku ci mel ni Moussa Wagué santi Ngom Krépin Diatta ak Loum njaay ñu ngi leen di tudd ci mbir moomile Sénégal nag ñu ne qualifié ndax moom sax moo jël moo ne ca boppu poule A bi ak fukki poñ ak ñett jonganteem dem ba ca bongante boobu nag uh, day tool rek lu jëm ci fësal uh, seen taxawaay uh, ñaar fukki fan nag ci kaan boobu sax nag ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ba fukki fan ak juróom ci weeru juillet fële ci réewum Égypte ñetti fan gannaaw ba itam sunu gaynde yi dinañ tase ak doomu Mali ci jongante xarito lay doon CAN 2019 ba tey datu tirage bi nag xamle nañ ko ñu ne tirage au sort bi euh, jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak euh, benn ci kan euh, bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin la ba fukk juróom-ñeent ci weeru juillet nuñ ko waxee ñu ngi ko nag jàpp moom tirage bi fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi nu dëkkmal ca Caire la ci Égypte li nag ne ñu gulet ñaar fukki réew ak ñeent nu bokk ci jongante bi Sénégal bokk ci réew yooyu xëccoo Coupe d'Afrique des Nations boobu nga xam ne mosu ko jël sunu coach bi nag di Aliou Cissé ñu ne sax wax naa dem foofee ca ker ngir xam rek Sénégal euh, yenn réew euh, la bokkal euh, lii di poule bu ñu jógee ci tàggat yaram ci tënk dañuy dem ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Boun Abdallah Dionne gaañi yamale nañu ko ci kudd roof ko ci gayet bi l'observateur déclaration bi mu defoon keroog dimanche ci guddi ba ñu wootee ba sottal di wax ne Macky Sall faluwaat na candidat Benno Bokk Yaakaar bi gagné na élection yi ak 57 pour cent waxam joojee weex na ko xàtt ni yéenekaay bi nee nañu bari nañu ko tegaat ci palaasam moom Mahammed Boun Abdallah Dionne bokk na ci juge Demba Kandji mi ne bu weesoo commission nationale recensement wot amul benn mbindeef bu am droit joxe résultat provisoire ci réew mi maître Assane Dioma Ndiaye bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme feelu Demba Kandji ci xët mu njëkk l'Observateur di fa wax ne am réew boo ko jiitee danga war di teey te ànd akuk dal Vox Populi nañu guddi yu ñu toll premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne mook tama ñoo tolloo ay buum gaa ñi mayuñu ko dara waa Sénat di commission électorale nationale autonome ñoo ngi sàkku ci politiciens yi ñu bañ wax lu leen leerul baa lu leen wóorul juge Demba Kandji mi président commission recensement vote Vox nañu na Boun Dionne palaasam la Sénégal nañu ñoom bi le juge Demba Kandji di waxal nee na leen amul kenn ci ñoom amee sañ-sañu joxe résultat loolee commission nationale recensement wot la war nañu ko bàyyee ak ñoom wax ci bu jotee dana ñu ci wax bun Abdallah Jonn ma ca waxoon la tribune wax nañu ne mooy mbambu ci réew mi jamono ji ne bari ñu génn di ko dal ak di ko yemale enquête nañu kenn ngi mu di Ziz Demba Kandji moom mi jiite commission recensement des votes jóg na yëkkati kàddoom ngir yamale politiciens yi sàkku ci ñoom ñu maandu ci résultat présidentiel yi ba ñi cey liggéey noppi seenub liggéey wax ni mbiri tëddee bu boobaa ñëpp xamandoo ko taxawaay boobee Ziz boppam le quotidien gisee ko cour de rappel sud quotidien nañu juge Demba ji dafa yemale gars yi lu nekk mu tegaat ko fa mu war a tege Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ne woon Macky Sall faluwaat na ak 57 pour cent journal Source A xëy na ko wutal turu bees premier ministre léegi mooy Selbe Dionne mooy seetkat bii gis lu kenn gisul mooy seetkat bii gis lu ñëwagul tax mu yàq nelawi nit ñi yee ñëpp ci guddi gi di leen wax waxi 57 pour cent Abdoul Mbaye ne ñu ci les échos Boun Abdallah dafa wax lu ko neex dafa wax lu ko leerul wax na lu dul dëgg premier ministre usurpation de fonction la def def dafa mbubboo lu mu doonul yéenekaay bi nañu waaye carte gi na ci présidentielle yi 2019 yi ne ba fi mu nekk ni dara leeragu ci candidat yi woon ci wote ku ci nekk yaa ngay wane na nga mëne ak fa nga mëne candidat Ousmane Sonko wan na gaañ ñi ne mooy borom Ziguinchor ak borom diaspora bi Idrissa Seck waneeti ne ku ko dëkk ca dëkkam mu di benn dëkk ñaari gaar maanaam kees da nga fa gis biddiw ba ceeg ca Touba it Idrissa Seck moo fa man waaye département yu bari yi ci réew mi Macky Sall gagné na leen libération nañu dalee na bàcc magum gagné yéenekaay bi di Libé bind ci xët mu njëkk les bàcc de Macky Sall ndax bu weesoo kees usuy Bignona Ziguinchor ak Mbàkke li ci des lépp Macky Sall waabale na ko ne ko fuuf ngar daajoo ko libé nañu ku jéeg politique gi ŋàññi ak jébaane déclaration bu premier ministre ak 57 pour cent yi mu wax terewul ñoom ku jéeg gi ñoo ngi wër di wax naan Macky la am ñoom ñett mu di Ousmane Sonko Macky Sall ak Idrissa Seck ñoo nekk ci xët mu njëkk ko enquête bi nañu Ousmane Sonko dafa mel ni fitt gumbar sànni ci diaspora bi ak ci Ziguinchor Idrissa Seck tëyee ba léegi département bu kees kon moom rëcci na ko kii di Macky Sall gañe na Bambey gañe na waaye dafa daanu ca Mbàkke ca Podor ak ca Matam moo fa tànk kii di professeur Issa Sall ak Dickson di maître Madické Niang enquête nañu daanaka yàqi tànk ak amuk jot lañ doon bokkee ci wote yi ndax dañoo daanu ba ànd ak seeni militant di xalangool l'observateur nañu fi tendance yi tollu tembe Macky moo jiitu gaañ yi ngir bëgg lépp gën a leer moo waral yéenekaay bu groupe Futur Média Touba Diourbel Ziguinchor Mbacké Kees bari na fa ay ministre ay directeur général ak i député yoo xam ne Macky Sall dafa yokkoon seen garaat dolli leen doole ngir bëggoon ñu gañal ko ci dëkk yooyee journal bi nañu waaye Macky Sall na xam ne asaloo na ankaram yàq na ko ndax ñooñee mu doon dooleel jariñuñ ko lu bare fu ci mel ne ca Thiès am na fa lu mu néew néew ñaar fukki góor ak i jigéen yoo xam ne Macky Sall jox na leen lu dul jeex waaye tous lañu ko gañeelul responsable yi benn bokk yaakaar ca Kébémer ca Daaru Muxti ak ca Géwul ñoom dañu leen a toroxal ba jaratuñu dërëm ca dëkk ba ca Ziguinchor ay ministre de la république ak i directeur général yu dul jeex ya fa nekk li ñuy bari bari terewul genn gone gu ñu dàqee woon ci fonction publique di Ousmane Sonko moo leen fa suqi ci 24 heures soleil national nañu résultat yi ñu foree ci commission départementale recensement wots bu doon garab la ñu ne kër gi kër Macky la fare direct info nañu waaye muy société civile bi ci réew mi di commission nationale recensement wots ñoom ñëpp dàq nañu chiffres gaañ yi koo yàgg fii leeg àjjuma dina leer ñu xam ku ci nekk ni nga mëne booy jëm loo mënul ñi lay seetaan ñoo njëkk a sonn loolee moo dal waa ji ci l'observateur ubbil journal bi waa ji Pape Amadou Ndiaye la tudd ab assistant infirmier la buy liggéey ci hôpital bu Kër ma Massar day wër di wax naan ab gynécologue la yéenekaay bi nañu am benn xale bu jigéen bu fa demoon ngir consultation waa ji di Pape Mamadou Ndiaye dugal ko ci benn saal di ko làmbatu ba xale bu jigéen bi yuuxu àdduna daje fa ñu jël faux gynécologue bi yóbbu gendarmerie mu ngoog Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safoo gi ak kóolute bi ñu tay di ko wax di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias c'est tout Sénégal c'est askan